jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital store lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek dab bànneexu client yi digital store lépp lu mu la jaay dafa la koy livrer ba fan ko soxla li ci gën a neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen payoor bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digitalistore mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digital Store améliorez votre quotidien téléphone 33 823 77 87 TQG ànd ak Colorado dellu si na di leen présenter peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy senn di seet ndox ñu defare ko ci ay anam yu mucc ayib ñu saytu ko ci ay laboratoire ba mu wóor ci qualité ñu doo koy teg ci marché bi yow mi nga xamante ne da ngay tabax dale bu pare utiliser Coloflex su fekkee nga karale itam bu pare jëlal Touflex ndax ay peinture d'étanchéité la yu baax a baax yu wóor te garanti toogaay amatul bu leen di xaar ba nawet bi door ngeen doog di jóg peinture Coloflex Artuflex bu Colorado moo xam nga dër sa terrasse bu pare wala nga karale terrasse bu ñu faral di dox ci kawam la wala bu ñu tëbaka dal bu mu ci mënti doon bu ngeen ñëwee TQG dina ñu leen conseiller xelal leen ba seen dootul senn dal buy seeb ndox dara wóoru ci moo tax TQG ak Colorado ñu indi leen Touflex ak Coloflex des peintures d'étanchéité yu wóor wóor yooyu peinture disponible nañu ci quincaillerie TQG yëpp ak fépp ci Sénégal TQG ñu ngi cité Keur Damel extension rond point 26 Parcelles Assainies wala Mbour route nationale ci wetu croisement Saly TQG Touba 28 ci wetu grande mosquée Keur Massar am na TQG ci rond point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 lu mu xamalut ñu bari wattaqullaha wa yuallimukumullah ku taqwallahi nekk ci moom it yàlla dana ko leeralal ana fu dëgg-dëgg nekk ak fu caaxaan nekk akuk neen in tattaqullaha yajal lakum furqaana yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne ñaar bu ñu àndee kenn war a jiitu na xam-xam jiitu bu xam-xam jiitoo bu ca wax toppee bu jëf ñëwee léppay baax waaye su fekkee wax moo nar jiitu ak jëf xam bëgg caa topp du leen dab ndax nañuy doxe jëmut fenn day gaaw lool waaye du àgg fenn fii fii rek ndax neexum ngont xam fay fanaan yi moo ko gën kenn sikk sakk wut ne xam-xam ak leer la moom sax mooy leer leer bokkut ak làmp booy teg fenn mu tàmbalee fi yam fee leer mooy lan ci misaal nit ki néeg bi mu ñuy fanaan léeg-léeg mu yendu fa maanaam dal néegu boppam su ca soxlaa guddi dara te fekk courant amut jërut muy taal ndax lu ne xam ne fa mu ko tegoon loolu moo tudd leer lu ne xam na fa mu nekk day ñëw ci néeg bi sax xool gis ñu randal ko day mel da koy yëg loolu moo tudd leer xam-xam noonu lay def ci dundug nit ki lépp day leer ci moom nañ mooy tax du sañ yu bari mooy tax du sañ yu baree bari ku xam du sañ lu bari bokk na ci ay darajaam moom xam-xam yàlla nee na ci alquran ñi gëm ñépp ëllëg ko tàmbale tey jëm ëllëg yàlla daf leen a sari moo teg leen ne ñu gënal ko ci ñépp waaye nag su demee ba ñuy tànnaat ci seen biir waroom xam-xam yi ñoo ko ca gënal yarfaci llahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat bi muy wax nit ñi ñu xam lenn fa seenu dégg toll ci mooy kan moom subhanahu wa taala dafa jël malaayka yi def leen seere ci nit ñi mu jël ca waroom xam-xam ya ndax ñoo mën a seet waroom xam-xam mooy mën a seet ndax du sañ lépp shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist yonent bi sallallahu alayhi bi mu koy leeral daf ne ku yàlla déggloo tuuti jox ko xam-xam ba mu mën a ràññee na ko wóor ne fam jëm fala ku yàlla namm ci moom fu mu jëm muy foofa daf koy déggloo rawat nag diine xam-xamu diine fa man yuridillahu bii xel yufaqihu fi diin moo tax alxuraan digal ñu bala ñoo jëf ñu xam xam nag diis na dem di ko jàngi diis na laajit ku xam mu wax la boobu sax la gën a joxañ fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun ëpp na benn yoon ci alxuraan benn boroom xam-xam bu doon euh, tontu ay laaj laaj yi tiifoo am ku ko bëgg a tiiñal ne ko yaa ne yàllaa wax ci alxuraan ne maa farratna fil kitaabi min shay mu ne loolu du samay wax wax yàlla la alxuraan lépp ngi ci mu ne ko su ci lépp nekkee palaa sàngam maanaam togg sàngam ni ñu koy togge fu ko alxuraan waxe mu jóg taxaw ci biir mbooloo moom doon waxe ne na ku mën a togg togg gii diw laaj togg ga bas buus la tudd togg ga Égypte la bas buus ñu bari yëkkati seen loxo mu tànn ca kenn ne ko toggal ma dégg mu ne dangay wut lii wut lii wut lii daal di taaj mu ne waaj a jàppal sa kee mu ne ko fu ko alxuraan wax mu ne ko alxuraan fi mu ko wax mooy fasalu ahla dikri in kuntum la taalamun lu xamul laajal moo tax jàngi moom mën naa weesu ndax nit ki mën naa dem ba tollu ci ay yitte foo xam ne dutu ko man moo tax sëñ bu mag bi doon leeral xaddis yonent bi boobu muy wax ne ixtanimu xamsan qubayla xams mu way ko moo waxtanimu xamsan xubaylal xamsi kama bihi amara xayrul insi waaye wax na ca benn ci yi nga xam ne day romb nit dutu ko maa dab moo jamono bi mu amee jot jotug jàngi na dem jàngi euh, waaye jàng nag du wees jàngi moom mën naa weesu waaye jàng du wees suñ jamono yi ñu jëfandikoo muy ay xarala yu yees ñu tudde ko ko nit a ngi ciy xam loo xam ne lii mën na caa am xam-xam bu ne gañ te lu mu ci xamut mu dem nag ko kon xaw ma woon xaw ma moom kenn dutu wala yàlla ëllëg kon jàngi ba am xam-xam di ko tënk léegi ci at naan weesu na déedéet jàngee mën naa weesu waaye jàng du wees di su ko tënk it ci fii la am jàng tàmbalee yam fii su boobaa tënk nañ ko ndax kaw suuf si yàlla dafay indi nit mu nekkal ko fi amul lenn lu mu fi war xam lu mu fi bëgg xam mën na ko xam ndax yàlla moo neen wa allama aadama al asmaa kullaha lu mu si bëgg xam mën na koo xam xam-xam nag ñaar la am na xam-xam bu set bi ci ñor ba ku ko gësam mu wadd ku ko gësam mu wadd waaye am na ci nag xam-xam xam-xam am na mooy bu amul njariñ boo déggaan xam-xam xam-xam nag bu am njariñ ànd ak di ko jëfe boole ko ay teggin ndax sëñ bi mag moo bindoon ne fa kasratul ilmi bi gayri bi gayri adabi jalibatun ila al ada wa taabi mooy xam-xam bu amul njëriñ rek lu ne mu xam ko waaye reew a reew ba reewireen gàddu taxul ñuy wax xam-xam donte tudd nañ ko boroom ginnaaw nag dañoo nekk ci di waajal at mu yees ci yenn daara yi nga xam ne dañoo bëroon bay war a tàmbali fu waay di yóbbu doomam mu fay jàng ji na seet ba ku ba mu wóor ko ne ñam koy jox woroomi xam-xam lañ yu am njariñ ba noppi di ko jëfe te ànd ak yar ak i teggiin ndax sëñ bu mag bindoon na ne doonut ne xam-xam yépp am njariñ nag fa laysa kullul ilmi nafan zaxti waaw waaye nag doonut ne it kuñ la koo dégg ñu ne borom xam-xam la rek nga daal di koy wóolu fa saa sax fa laysa kullu l def nafan za ihtiwaa wa laysa kullu l-ulamaa fi istiwaa am na ci xam-xam yoo xam ne nee na day wowal ab xol xam-xam la xam-xam bu wowal ab xol nag mooy xam-xam xam boo xam ne su ko waaj a jàngee ba bañ ne xam na ko lam koy jural mooy rëy daf koy wan boppam saa su ne mun a ñu naa ko mun naa ko xanaa xamu ne borom xam-xam mu yëkkati ay wag te su boobaa ku yëg boppam fàtte na yàlla nit ki saa boo yëgee boppam fàtte na nee na waroom xam-xam it am na si ñoo xam ne seen pay ëllëg yàlla nañu ci yàlla musal mbas mbas fii wa hakada fi lulamai qaw jazaohum gadan gadan walaw yàlla nañu ci bi bi muy wax mooy xam-xam boo xam ne day fàggul boroom mi ko doon jàng di ko wut di gën a ragal yàlla xam-xam buy tax nit ki di gën a ragal yàlla ci jëflanteem ak ci lépp tënku ma ko nag ci xam-xam diine rek waaye xam-xam bu ma doon bu fekkee nit ki ci alxuraan la jaar jaaree ci xam-xamu diine ragal yàlla dana ko yomb lool ndax ma yaxsha llaha min ibadihi al ulama ña ko xam ñooy ta ñooy ñooy sàmmonteeg lu ñu lu ci nekk rek ñu sàmmonte ak ragal yàlla su demee ba yor lu ñëpp bokkit yàlla lay fab teg xam ne lu mu am am doole bis danañ ko takk te du sama dara ñu teg ko ci dénk teg ko ci dal bu nooy ak néeg bu sedd teral ko ciw dénk ñëpp jàkkaarloo moom te am na ñooñ gis ko jafe woon na leen ay jamono ku teg foofu bëtam xam-xam ba du ko sànk euh, lu bari la mooy fi mooy foo gisee ci mooy fi muy wax ci masak ñu naan saa boo gisee ma ne maane maane moom segg na ca waxi gaa yu baax ya loo xam ne bu nu ko joxee dana yomba jël nee na xam-xam bi amal nit njariñ mooy xam-xam boo xam ne daa wan nit ki saa su ne mi ngi koy wan ne ko gënoo kenn kat lii mayug yàlla la waaye gënoo kenn kenn nga ci jaami yàlla yi lii nga yor wut am na ñu ko wut ni yow te yàlla joxu leen ko nii mu la ko joxe saa su ne la ko xam-xam bi wan su boobaa dana ko joxe te du ca wanewu du ca wan ñam koy jox maa maay kii wala maay kaa sa yanfau l abda ulum yarumuha li xubbi mag la yow lu baree bari la am na juróom-ñeenti xeet yi nga xam ne nee na bu kenn wuti xam-xam ngir loola mooy wala la si yi nga gis ci masaalikul jinaan waaye am na juróom-yaar yi mu wax ne it jar na di takk ka tekki lu mu sori sori ngir wuti xam-xam ku dem ci masal ko jaan da ko ca fekk ma jeexale ko ci ne xam-xam amuti at amut suñ ko yamale waaye nag desu ko desu ko tënk rek ci fii la tàmbale yam fii soo amee kayit bii laf nga sa àlluwa déedéet xam-xam du ne ci ay kayit naam màndarga la ca ña ko doon jàngal waree ne kii liñ ko doon jàngal xam na ko ëllëg si biir fu dem suñ ko ko joxee dana ko man loolu rek la kayit di tekki waaye xam-xam fu nit jëm daf ko yóbbale moom la nit ku ñuul di léeb ne di léebu naan li nit ki gën ay moroomam buy sangu du ko summi xam-xam bu nit ki nelaw sax mu nga ak moom suy laal ndox ma nga ak moom suy lekk ma nga ak moom noonu la war a demee ci dënn lay nekk imaamu Shafii yi mel na mas tukki bis boobu tukki yombut nii mu yombe nga xam ne da ngay xërikoo fii rek dox juróom-ñaari téeméeri kilomètre ci benn bés dañ daan war wala ñuy dox bu naaj wi tàngee ñu yendal moom nag muy dox ba yàgg mu yendal ci ak ker benn waay bu jógee ci dëkk kaw yooyu fekk ko fa laaj ko nu mu tudd mu wax ko mu ne ko yow yaway boroom xam-xam bi may dégg mu ne ko am nañu ko wax mu ne ko dama la bëgg a laaj ñetti laaj laaj yowee du bëgg a xam de waaye di tiiñal ko la ak yëj jëm ko yëj weddi la waroom xam-xam ya wax waroom xam-xam yu am njëriñ yi lañu wax ne kii am na xam-xam am na jàngal bañ am xam-xam moom am na ko ko jàngal waaye gisut loola mu ne waa ji bisimilah laajal mu ne ko dama bëgg nga wax ma ana nu ñuy saxale na yàlla ko am la ñaareel bi ana nu may mën a saxale ne yàlla lu am yàllaa ko dogal ñetteel ba ana lu may mën a saxale ne ëllëg yàlla dana nu dekkal mu ne ko bu jëkk bi amuk yàlla gi li koy tegtale gëléem gii nga war ba agsi fi man ndax gëléem bi daa jekki-jekki rek doon gëléem jarul fenn mu ne ko ah, ah kay nag mu ne kañ nga amoon gëléem gi mun ne ko bi ma koy am kay ab cumbur la mu ne ko amul kenn ku ko jur daa xëy xëy rek doon cumbur mu ne ko ah kay nag yaay ma ko jur mu di ko topp ba mu nar a gudd mu ne ko kookee ko jur laa ko bind loo gis rek daa am ko ko defal loo séen rek am na ku ko defal kon jëm suñu borom bi da siy génn ndax di di su ko teg bët di su ko teg loxo laa tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar muy tontu lu yow xam gëléem bii nga war rek bu fekkee moo moo jékki-jékki doon gëléem wax mu ne ko déedéet nag am na ko ko jur mu ne ko ko mën a jur ka ko jur. yàllaa ko defar moom ba muy juraate mu ne ko waaw loolu moom ànd naa ci ndax gis naa ko mu doonee gone ba ni mu tolloo nii ma di ko sëf fu ma bëgg a dem dem ñaareel mu ne ko dogal bi mu ne ko dogal bi mooy gëléem gi bi nga ko waree ba yàgg nga wàcc bi ngay dox ci suuf si gisoo foo jaar sa tànk dafa wét mu ne ko ah kay mu ne ko tànk yii nag ak yañ joxagut yépp yàlla noppi na si bu yàgg ëllëg si biir lu ñu def yàlla da koy bind tegal ñu ko sax nii sa tànk yi ne wétti fii ci kaw suuf si sa tànk gëlëm gi ne fi wétt noonu la yàlla di àtte ëllëg noonu la ko waxee woon ne nii lay amee tey jii moom la suñ bi wax ne laysa yakunu li jamil ala laysa yakunu li jamil alamin as asarun fi asarin ma dal yaqin laysa yakunu fi jamil alamin asarun muassirun fi asarin ma dal loo gis rek boo ko mënee teg loxo rek yàllaa ko bind tey it fa mu nekk yàlla wax xamoon na ko ndax nangu waa wala déet lu gudd la dama ko tënk mu ne ko nangu na mu ne ko li nga ne nu may nu ñuy saxale ne ëllëg dañuy dekkal garab gii ñu toog firndeel na ko joxoon na ko misaal ci gëléem gi mu war jox na ko misaal ci tànk yi mu doon dox jéegoom yooyu tànkam yooyu marqué ci suuf si bu boo ko doon topp mën koo topp xam fi mu jëm waaye garab gii ñu toog daa jékki-jékki doon garab waaw wala déet mu ne ko déedéet giif la woon giif mooy doomu buy doom booba ñu màcc ba sànni ko bu tuuti boobee mu ne ko noonu la tàmbalee woon dee wow koŋ ñu suul ko mu taw mu sax am ay xob tóor tóor am aw wuy génne buy noonu lañu yàlla dekkale bu ëllëgee giif daa dee woon ñu suul ko mu dekk baat doon doon garab gu ne léng bañ bokk ci toog nii nangu nga waa wala déet mu ne nangu naa maa ngi jéggul dama xamutoon kooka xam-xam bu am njariñ la yoo te da ko yóbbaale fu mu jëm ba ku ko laaj noo toll rek mu mën laa tontu ca fa nga toll moo tax tontu boroom xam-xam du ñépp a ko sañ jabaatar ak moom moom waxaale wuñ ko ndax yow fa ngay dellu da nga naan dégg naa ci kuñ naan dégg am nañu am nañu wax ne xiilaa xaala xaala joo xam ne doo mën a wax comme doon kon nañ gën a góor góorlu ñu ngi ubbi ci waat daara yi ñu tànn bu baax a baax a baax kenn ku nekk fa muy yóbbu ak njabootam te loolu it bokk na ci la ko koy leeralal moom it mu fexe ba xam dara ba mën a xàmmee fi xam-xam nekk ak fi xam-xam nekkul yàlla na yàlla defal léegi ak topp te musal seytaan nekk pakkam te musal ñu ba faw ci réy réylu yëg réy mooy yëg bopp yëg sa bopp te ku yëg boppam fàtte na yàlla yàlla ñu ci yàlla musal te yàlla kat kenn ëpp ku fulla dama yàlla baal ci baat boobu am na fu mu ñu dànkaafu wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum yàlla du fàtte kenn waaye dalay wan ne rek lii boo ko defoon nit mu maandu ci yow yàlla ñu ci yàlla musal يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين أجابني رب السماء ولا TQG ànd ak Colorado dellu si na di leen présenter peinture yii di Touflex ak Coloflex di ay peinture d'étanchéité yu baax Touflex ak Coloflex doon na ay peinture yu gën ci terrasse buy senn di seep ndox ñu defaree ko ci ay anam yu mucc ayib ñu saytu ko ci ay laboratoire ba mu wóor ci qualité ñu doo koy teg ci marché bi yow mi nga xamante ne da ngay tabax dale bu pare utiliser Coloflex su fekkee nga karale itam bu pare jëlal Touflex ndax ay peinture d'étanchéité la yu baax a baax yu wóor te garanti toogaay amatul bu leen di xaar ba nawet bi door ngeen dog di jóg peinture Coloflex Artuflex bu Colorado moo xam nga dër sa terrasse bu pare wala nga karale terrasse bu ñu faral di dox ci kawam la wala bu ñu tëbaka dal bu mu ci mënti doon bu ngeen ñëwee TQG dina dinañu leen conseiller xelal leen ba seen dootul senn dal buy seeb ndox dara wóoru ci moo tax TQG ak Colorado ñu indi leen Touflex ak Coloflex de peintures d'étanchéité yu wóor wóor yooyu peinture disponible nañu ci quincaillerie TQG yépp ak fépp ci Sénégal TQG ñu ngi cité Kër Damel extension rond point 26 Parcelles Assainies wala Mbour route nationale ci wetu croisement Saly TQG Touba 28 ci wetu grande mosquée Kër Massar am na TQG ci rond point Guy gi route de Jaxaay TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée bi wala TQG 65 rue Nganandou Diouf TQG 84 rue Nganandou Diouf itam TQG notre force la qualité ci jamono yi nga xam ne ñëpp dañuy yittewoo xarala yu bees yi jëm ci kër wala ci bureau ak yeneen digital store indeeti na ay xeetu matériel yu mucc ayib yi mujj génne ci jamono ji ay matériel électroménager informatique yu ngeen di faral di gis ci marque yu mag a mag yi su ngeen demee ci sunu showroom yi nekk Bourguiba wala Corniche Soumbédioune Colobane ak Point E lépp nga fa digital store lépp lu mu jaay ànd na garantie am na service après vente bu farlu buy dem fépp ci région yi ngir rek da bànneexu client yi digital store lépp lu mu la jaay dafa la koy livré ba fan soxla li ci gën a neex neexati mooy lépp lu ngeen fa jënd lu tolloog ñaar fukki junni wala lu ko ëpp digital am na partenariat ak banque Microsen ak Cofina ngir yombal leen seen bi ci 12 mois wala 24 mois moo xam ndax ordinateur ngeen jënd wala téléphone portable wala congélateur wala réfrigérateur wala climatisation centrale wala split su leen neexee itam ngeen def seen commande en ligne ci www.digitalistore.sn Digital Store mi ngi ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram LinkedIn ak Digital Store Améliorez votre quotidien. Téléphone 33 823 77 87. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo